mu nekk le premier livre audio ay suite la donc duma ci def commentaire génn na sénégalais yi déglu nañ ko ñu annoncé secret d'état comme ni ma ko waxee d'état de secret ak secret d'état booy déglu ci son bi caat mu ngi ciy wax di ci poser ay questions fan la Fulbert Sambou dugg il a pose des tas de question ba pare il a il a résumé le bilan de Macky comme li ñu doon wax léegi nii quoi ci recul démocratique ci Sénégal bu ñu demee ba booy di exiler ku di laajal ngañ Demba qu'est-ce que Ngagne Demba a fait ba war a tax muy exiler koo xamante ni c'est un gosse pétri de talent on besoin d'un juge comme Ngagne Demba ëllëg fii fii ci Sénégal nekk di doxal li mu war a doxal mais parce que ça n'arrange pas l'état bi fi nekk ñu menacé ko dañ lay tëj ci kaso bi ba tax mu exilé wu donc dans ce pays bu ñu demee bay taxaw naan état de droit la ah man de ci li ma gis. état de droit mooy li caat wax xotti nañ ko bu yàgg. def nañ ci ko le timing secret d'état moment bi ngeen ko génnee c'est plus par rapport ak échéance yi ñu jëm. le secret d'état euh, en tout cas de toute façon dañ koy accompagner rek des singles vont sortir am na am na am na am na par exemple euh, dossier classé. am na son bu tudd dossier classé am na son bu tudd dossier sans suite voilà <laughs> si ay classé mooy li alu euh, mooy li ñu doon wax léegi fii nii quoi par exemple ñi nga xamante ni dañ leen a ay code de contrôle ay code de leen ñu teg ci euh, ñu teg ci conc donc des titres comme ça dossier classé dossier sans suite euh, euh, <laughs> euh, kii nii témoin 1979 témoin 13 13 def son critiquer gestion nguur gi defoon ngeen ko itam ak président la Wade waaye bon xam nga des fois damay lire ci commentaire nit ne yéen kër gi vous ne savez que critiquer les politiques nous on a opté c'est-à-dire dama koy rappeler à chaque fois que notre histoire avec le rap c'est un accident mm-hmm. ouais parce que en 1996 bi ñuy créer suñu groupe maximum ki euh, ci magoon il avait 17 ans on avait moi j'avais 16 ans tu vois on ne pouvait pas créer un mouvement parce que temps yooyu màccaguñu jëm ci ay mouvement ak yooyu mais quand même on suivait te am na lu nekkoon ci ñun bu yàgg a yàgg donc il fallait euh, il fallait vraiment euh, faire quelque chose il fallait s'impliquer euh, sur la gestion de l'affaire publique en commençant par notre région maire ba fa nekkoon mu tombé woon ak le régime socialiste. ay sentinelles daal ngeen yéen. ci la ñu il faut faire quelque chose il faut que il faut qu'on s'érige en sentinelle. et ça suffit. ñu ne pourquoi pas le parce que c'est le seul moyen boo xamante ni ça peut nous permettre vraiment. Euh, ñu bokk mais nag ñun dañuy choisir suñu rap dafay nekk un rap engagé un rap conscient un rap qui éveille. est-ce que la responsabilité population bi dina feeñ itam ci li nga xam ne yéen a ngi koy décrire. mais boo dégg à charge ci. non xam nga xam nga moom laa lay wax xam nga dafa am ñoo xamante ni c'est des paresseux parce que kër gi a trois publics le public hip-hop ak le public bi nga xamante ni c'est le grand public mooy ñoo xamante ni ci jógu fi la ñeem. parce que jóge fi c'est c'est une chanson populaire y avait euh, la belle voix de Kilifeu peut-être li nga woo di ko yendoo mu nekk lu terre à terre lu populaire mais boo jëlee encyclopédie nga déglu y a mon beau pays mm. un son comme mon beau pays mon beau pays on euh, c'est l'ironie de maanaam taaru Sénégal te pourtant dañuy ironiser mais ci ironiser mu nekk dëgg laisser aller bi am ci dëkk bi di tant fu nekk di teg ay jàng hmm. maanaam critiquer la responsabilité bi nga xamante ni le peuple ci boppam tey Sénégal bu doxee ni c'est pas juste les politiques mais ku ci nekk da nga ci am part de responsabilité un pays pour mu dem wala tey jii débat bi pour mu dem il faut que chacun joue sa partition hmm. donc dans un pays mooy euh, dans un discours de Ousmane Sonko bi mu ko doon wax ni su ngeen ma jiitalee wala ngeen fal ma ba man kese dem toog li ngeen di escompté mënuma ko bés bu ngeen demee ba ne man ngeen wóolu sama discours ngeen gëm adhéré ngeen ci bés bu ngeen ma falee da ngeen ciy jàpp ñëpp dañ ciy dugal seen loxo. mais boo seetloo tey jii nii li ma commencé gis muy am mooy que ni maintenant le sénégalais s'implique la sénégalais s'implique mu ngi lijjanti réewam nan la ñuy téye kopparam parce que bu njëkk on ne parlait pas de contribuable. nit ñi xamuñoon woon lan mooy contribuable il a fallu que le rappeur peut-être wàcce message bi oyafal ko ne le contribuable dafa mel ni genre tontine natt bi ñuy natt ci koñ bi ku nekk di participer ñu jël ko am ku ñu wóolu di ko ko dénk kooku di ko luubal détournement les gens ne détournement c'est quoi ñooy leen mooy luubal ñu la dénk xam nga on parle de de de de, de constitution maintenant on parle de ñu ngi lijjanti vraiment tey débat politique bi ñi koy gën a animé nekkatul sax les politiques yi nga xamante ni ils sont de la formation d'un parti wala jàppal bàyyil très bien ñi koy def léegi c'est la c'est le lambda kenn mënatul nax kenn boo toogee di wax da ngay xool bu baax li ngay wax parce que ñi lay déglu boo moytuwul ñoom ñoo la gën a toog ci bagages yi mais peut-être yow la yàlla jagleel ngay téye micro di wax. Abbas yaa ngi bàyyi xel kër waaw bon maa ngi leen bàyyi xel yàgg naa leen suivre di leen déglu mais comme je euh, la place publique comme Agora. chacun doit jouer sa partition mm-hmm. ki am baatam na utiliser baatam ki am alalam na utiliser alalam ki am xam-xamam na ko utiliser pour ñu defar réew mi donc li ñu wax muy message yi nga xam ne joxe nañ ko témoin 19 79 euh, wala témoin 13 13 ak yooyu yëpp tout c'est des contributions mm-hmm. voilà contribution à l'esprit à l'éveil des consciences parce que aujourd'hui foofu la ñu toll il faut que l'on éveille les conscience des Sénégalais ak fépp fu ñu mën a ne internet joue sa partition journalistes yi ñu ngi jouer seen partition ainsi de suite mais ñoom ils ont préféré faire un rap engagé léegi nag <laughs> qui parle de rap engagé parle effectivement de critique mm-hmm. l'essentiel que l'on prenne ces critiques comme une contribution pas que mu nekk voilà ñii dañuy révéler wu wala ñii dañuy la parce que le rap c'est une contribution voilà donc cette euh, c'est des moyens de contribution yoo xam ni eux ils se prennent comme des sentinelles de la démocratie suñu gisee ni baax na ñu wax ni baax na su ñu gisee ni baaxul ñu ni baaxul noonu la ñu doxalee woon ak Abdou Abdoulaye Wade parce que je me souviens encore diggante quatre-vingt-deux dix-neuf ba deux mille encore chaud mm. bi ñu ñëwee ba deux mille onze deux mille c'était encore plus chaud mais ba tey ñi ngi ci constance boobu ci logique boobu la ñu nekk moo tax ma di leen félicité di leen encourager parce que ñu ngi jouer seen partition ci liy éveiller conscience yi ñun ñëpp ci loolu la ñuy taxaw ñoom ñi ngi ci taxawee ci fànn bi leen ñeel muy seen musique ñi ngi ci taxaw ci beneen fànn muy comment faire pour que les Sénégalais ne puissent pas se tromper de choix loolu aussi ku nekk am na ci wàllum donc à travers Kilifeu may féliciter seen group bi yëpp. vraiment di ñaan yàlla. yàlla gën a dëgëral seen daal. seen taxawaay parce que liy jëmale Sénégal ku ne da ci am sa pàcc. Aliou. non non mais moi c'est des garçons que j'aime beaucoup surtout Kilifeu particulièrement. boo xam ne je suis en même temps loin de lui mais proche euh, de de lui. parce que parce que parce que parce que dama koy bàyyi xel lu lu lu lu bari. ba si ñetti ñeenti at ci ginnaaw. Euh, euh, je j'aime beaucoup euh, kër gi maa ngi leen commencé di bàyyi xel période bi bi ñu bi ñu bi caat doon def kii bi comme bi ci bopp bi. Euh, doon doon def yaramu neen def yaramu neen. com euh, com nee waxal ma waxal ma Aliou muy wax ci micro bi. mu wax ci micro bi ah, waaw donc donc donc parce que en réalité dama xamul ndax ci micro laa war a wax wala xoolaale. bi ma wax ci micro bi rek ah. waaw voilà voilà mu ngi noonu voilà mu ngi noonu donc donc du coup du coup du coup ce sont des des des des garçons extrêmement engagés moom euh, moom moo que j'aime beaucoup euh, surtout ci li ñuy def c'est juste que rek euh, bon des fois dama leen a mere tuuti ci seen façon ñuy faire parce que j'ai comme l'impression que ni position sentinelle c'est vrai mais position sentinelle mais du côté de l'opposition toujours la ñuy la ñuy la ñuy nekk et du ñu critiquer mukk opposition bi par rapport à certains de leurs comportements. Euh, parce que opposition bi mooy un jour ñëw nekk ci. te même attitude yooyu ñoom ñuy bañ a critiquer ñoom dañuy xaar ba ñu yegg si ci euh, ci euh, ci kii bi ci ci nguur gi pour pour pour commencer di leen critiquer alors que pour résoudre le problème ils l'ont fait avec Abdoulaye ils étaient du côté de Macky Sall eh ben euh, ñëw na ci nguur gi léegi fàtte nañu ñu bari nekkoon ci Abdoulaye Wade nekkoon ci opposition bi nekkoon ci nguur gi te ñoom ñu nekk ci opposition bi déggoo ak ñoom te ñoom duñu leen critiquer wala bu ñuy amee yenn position yi wala bu ñu leen dugalee ci yenn bagages yi comme l'histoire de de de de Habib man pour man waroon nañ ko waroon nañ ko yuuxu ci kaw waroon nañ ko way parce que euh, euh, lii lii c'est une forme de continuité non xam lu tax wa def ci son parce que lu tax pour sénégalais yi xam que ni euh, Habib Sy c'est le Habib système bi ñuy jéem a jéem a kii tey jii nii Euh, euh, au mu nekk au lieu mu nekk pur eh ils ont préféré euh, système bi parce que c'est pour des raisons politico stratégiques et loolu man ça m'embête beaucoup et ça me gêne parce que je me dis que ni amaana xëy na loolu am na yeneen sax contradiction yoo xam ne dafa am ci ci ci ci wàllu Ousmane Sonko yoo xam ne daf ko waxoon après defee neneen xam nga di seq ak ay ñoom ay dëmbooj xam nga des gens qui sont là depuis des années moi moi moi man man problème boobu laa am ak le PASTEF def euh, mais euh, ça n'a absolument rien ak seen gis-gis parce que seen gis-gis sax lu bari daan naa ko wax entre 2007 ak parce que je je dès quand je restais pas doon moo fi toog mais dama daan ñëw assez régu fréquemment même je dirais euh, di wax ci rajo yi di wax ci télé yi demaat sama yoon parce que j'ai encore le travail là-bas donc mais du coup yu bari dama ko daan wax te après ma gis ñoom ñu koy wax donc pensez Pastef pensez le verbe penser xalaat pensez Pastef c'est c'est c'est ku ku ku bëgg dëgg. Mm-hmm. wala ku bëgg lu jub ku bëgg Sénégal avancé forcément il faut nga penser Pastef yéegi nag la question c'est de est-ce que Pastef yi ñoom ñoo leen njëkk a pensé wala yaa leen njëkk a pensé mais ça n'a pas d'importance ce qui important c'est de penser ensemble li nga xam ne moom mooy avancer le réew mi te loolu Pastef moo ko gën a fësal fu ñu toll nii en tout cas Sénégal Sénégalais yi ci Pastef lañ ko gën a gis sauf que yooyu pour def ko il faut être euh, euh, un bon stratège il faut beaucoup d'intelligence même dans le comportement politique te euh, intelligence boobu nag des fois lu am ci comportement politique moo tax muy am yenn faay yi yenn yenn yenn yenn yenn yenn yenn wax yi nga xam ne moo lay dugal ba ñu yàqal la sa mbir yàqal la sa yoon te loolu je pense que ni perte temps la mm-hmm. te te te pertement la pour aussi sénégalais yi donc yooyu faisant ça fait que effectivement man su ma leen gisee ñoom duñ duñ duñ leen yedd directement axam dama il y a un an et euh, de, de bon ci kaw Yewwi <laughs> Askan Wi quoi exemple euh, da dama doon critiquer beaucoup beaucoup Yewwi Askan Wi parce que parce que parce que bëgguma woon man bëgguma woon yeewi askan wi man ce que je voulais c'est que euh, état d'esprit bii ma gis ci gars yi ni ñu ne ñoom passif la ñu tudd état d'esprit mu continuer euh, dem ci benn yoon euh, ku bugg nga ñëw nga seey ci biir wala ku mais mais mi pas di ko def sous forme de coalition parce que coalition xam nañ ni yoonu yekkute bokkul ak ak ak ak plan Sénégal émergent parce que xam nga lu tax parce que après coalition benn bokk yaakaar leneen la alors ça n'a absolument rien à voir ak li nga xam ne mooy état de se boo gisee ñu bëri décevoir une partie en partie ci ci ci Macky Sall c'est parce que yoonu yokkute bi euh, euh, moom la sénégalais adapté adopté woon ci lu bëri mais après yoonu yokkute munatul woon continuer parce que dafa am leneen lu ci greffé loo xam ne euh, après feeñ na ci doxalin yi mais physiquement benn bokk yaakaar lañ ko tënn avec des personnalités nouvelles ñoo xam ne ñi ngi bokk bokkoon ci réew mi daan gouverner yoroon amoon ay ndombol tànk doon doxale nenn façon doxale ni ñooñu bu ñu ñëwee forcément yow même bu fekkee ne yaay jiite dañ lay influencer ah moo tax du coup je n'ai jamais voulu que ni euh, Khalifa Sall euh, et les autres c'est pas parce qu'ils sont méchants wala demee noonu mais man pour man ñoom dañu waroon gaare euh, ñu doxalee neneen avec une nouvelle façon de faire une nouvelle façon de faire de la politique te loolu ki ko gënoon nuróole gënoon am kii bi Euh, euh, ñu sentiroon ni war na mën a nekk loolu euh, gën gën ci kii sénégalais yi kooku waa Pastef la woon waaye ñoom amuma doy dañ ne parce que dañu war a nekk ay stratège politique il faut que ñu dem jëli ay nit ñoo xam ne ñoom dañ leen doon critiquer parce que dañ daan ne par exemple kaw may def politique tax ma koy def nii di reyante nii c'est parce que dafa am ñoo xam ne dama gis li ñu doon doxalee réew mi yàquteef yi ñu doon def ci réew mi ñoom ñoo tax may def ci politique donc tey xalaatuñu sax un jour taxaw naan dañuy jëflanteeg ñoom te képp koo xam ne xalaat nga naan da nga war a mës a loolu mën ko teg comme hypothèse da ngay sonal sa bopp parce que loolu du mës a mën a nekk parce que ñun ñoo tax ñun lii ñuy def nii ñu koy def pour mën a changer mbir yi defi ci ma ñooñu ngay jël ngay toog ak ñoom mënoo yàlla bu la dimbaloon ba nga téye nguur gi je vous assure d'une chose changement du am xam nga lu tax wala buy am en partie am te dina am ñeneen ñoo xam ne kontaan nañu xam nga fi changement am na ci wàllu Macky Sall am na lu mu fi jot a def ci wàllum réalisation mais ci wàllum justice aussi boo gisee yu bari di bloqué nii c'est parce que dafa am euh, doole boo xam ne mënu ko amul ko pour booster mbir yi parce que dafa am ñoo xam ne ñoo lay ay facteurs bloquants yoo xam lu ñu nekk par ku ñëw adhéré ci état d'esprit boobu ci projet boobu da ñëw xam nga da nga seeyal sa bopp ci biir mais bii seeyaloo ci bi bopp da ngeen def ay coalition boo leen téye nguur da ngeen ko war a waxtaane seet Euh, di bàyyi ku nekk di bàyyi bàyyi xel ci yow donc loolu faisant et puis surtout may wax ñu ñëwaat élection locale am ñu ne encore dañuy ànd ak ay ñoo xam ne ne ñu ne day ànd ak wàllu qu'est-ce qui s'est passé wàllu mais euh, wàllu même téléphone même téléphone il ne voulait pas lui répondre parce que il il ne trouvait pas nécessaire di di wax ak waa ji téléphone te kooku la ñu mujjee ñoom defal coalition euh, intercoalition pour benn objectif unique rek mooy daaneel kële daaneel leen ko mais après vous allez voir ce qui va se passer quelques deux mois après gis ngeen après wàllu dafa dem demee booram ñu teg ci juróom benn weer même pas gis ngeen aussi ñële tamit pour seeni seeni seeni yëfu bopp seeni xalaatu bopp ak seeni seeni seeni itinéraire personnel ñu xalaat ni ñoom il faut ñu defee neneen ce qui fekk ni après ñu naan oui dañu trahir mais au moment où je le disais les gens ils disaient mais gars yi dañ ko yónni quoi dañ ko yónni pour mu tas yeewi askan wi waaye parce que yeewi askan wi c'est une très bonne idée machin kii euh, ah, dañ ko fay pour mu def yéeg-yéeg yi alors que finalement mais dama leen di wax des mais yéen il faut ngeen di vaar parce que boo leen vaaree aussi di ngeen fàttaliku ni kii li mu fi waxoon démb parce que loolu tey nii moom ngeen di sànq ñii léegi ngeen doon wax da di ànd ak ñoom ñoom ngeen di tam dëmb man waxoon naa leen c'était pas salir les autres hein mais man je ne veux pas apparaître comme un mouton de Panurge parce que melu ma noonu te du loolu lañ ma forger même ma fille qui a 24 ans dina nekk docteur mais man musuma ko musuma ko dafay toog dama ne mais je suis pas d'accord et puis elle arrive à me convaincre te alors ko jël maa ko doon sang maa ko doon affaire yaa ngi dégg te kooku tey nii elle m'apprend des choses ci dund yooyu lay dund quoi je vis avec des des une vie boo xam ne une femme peut voter que euh, euh sociodémocrate parce que ay allemand lañu son père totalement libéral nga xam ne moom euh, CDU rek lay lay lay voter sa sa sœur qui vote carrément chrétien démocrate c'est CSU xam nga ma fille qui ne vote que koo xam ne ku dul extrême gauche du du du c'est même pas la peine keneen ki gën ko teppeeku yaa ngi dégg euh, pour vous dire que euh, boobu man mënuma topp nit buy erreur boo defee yenn erreur yi ba toll ci benn niveau man man je suis obligé après ils disent que oui gaañ bi moo changé quoi alors que ñoom ñoo changé parce que ñoom liñ doon wax ca njëlbeen après defuñu ko parce que ñoom ils pensaient qu'ils étaient beaucoup plus intelligents et que ils étaient dans la bonne voie et que loolu ñu doon def loolu la et que kenn amul droit critiquer ko moment boobu maintenant wax ma léegi Khalifa wax démb ñun li ñu doon man personnellement ak Khalifa Sall tey ji nii ak situation di dund wala en tout cas waa taxaw leen fa yooyu yëpp pourquoi pourquoi duñ doon leen parce que quand même euh, a def avec mais parce que dafa noonu am vingt députés vingt quatre députés quinze députés diaspora yi day door dix yi par force te biir Sénégal dina ci am lu bon bon bon dix ba douze ba quatorze députés waaye il est donc coalition boobu c'était pourquoi faire c'était pour lan après oui d'accord après bu ñu paree ku nekk na nga dem euh, nekk candidat à présidentielle mais vous vous voulez un programme pour le pays changer les choses radicalement mais pourquoi du ñu ñëw épouser woon programme bu passé fi bu fekkee ni par leur expérience ñoom ñoom nañu seey ci biir am nañ expérience parce que am na yu bon yoo xam ne dundoon nañ ko ñu bëgg ak yu baax yoo xam ne xamoon nañ ko bu ñu duggee bi Pastef ñu jéem ko changer ñu jéem a orienter ne mooy logique ñu jéem ko defar ba ne day jub nga xam ne ngay jiite rek nga nga nga kii ko nga nga yàq ko rek loolu lay togg la muy dem waaye c'est quoi le truc dañ ko mais mais dañ ko yàq parce que mënu tax parce que ils pensaient qu'ils étaient intelligents entre eux ñoom leaders yi ñoo doon daje entre ñoom conférence des leaders machin un coup c'est Khalifa Sall un coup c'est un monsieur boo xam ne Habib Sy mais c'est inadmissible de penser que ni tey nii même dafa dafa dafa dafa loolu xel waru koo mën nangu même bu fekkoon sax diggante bi sentiment yi dem na ba am na côté paternaliste entre le leader et l'ancien euh, euh, woon parce que c'est pour l'intérêt di ko jox waa ji pour tiital ko parce que quand on le regarde ce monsieur man je ne peux pas me taire parce que le monsieur il a été quand même le dernier kooku moo doon xeex pour Ablaye Wade am un troisième mandat alors comme man dama ci sonn man dama ko dama ko xeex lii kooku la ñuy jël jiital ko mu taxaw keneen beneen femme boo xam ne dafa yàgg nekk na PS nekk na PDS nekk na monsieur euh, ma carte ma caution et cetera taxaw na jooy mu ne man diw bi ma fekk situation bi ma ko fekk mu mu mu nekk euh, kooku kooku kooku xaw ma sax ndax yàlla dina ko dina ko dinaa ko gisaat yëngu nag sangu di def semblant ces manières là. yooyu noonu yu sew yooyu ku doon Clédor Ciré Ly mais sax c'est un des meilleurs procéduriers mu taxaw aussi toog si benn pousse-pousse ñu yóbbu ko mu wàcc Paris dox gis nga man yooyu laa mënul nag moi j'aime pas être berné j'aime pas être dëkk bi il faut que xam la ñu war a way nii nañu wax dëgg te boo critiqué boo leen critiqué gars li ngeen wax nii yëpp ci nguur gi dëgg la parce que dafa am ñoo xam ne liggéeyu ñu woon démb tey doog a ñëw Ousmane Sonko président de la République aujourd'hui six mois wallahi dëkk bi day tas xam nga lu tax tas parce que li mu bëgg du ko def parce que moom ci boppam dootuñu ko joxati cër ndax ni mu demee ñi mu liggéeyal dañ koy tënk ba du mën a dem parce que où vous êtes dedans mais boo nekkee à côté et on le fait ensemble ça veut dire qu'on partage le pouvoir ensemble il y a des choses pour les changer dans ce pays là il faut y profondément un programme solide mu leer nañ nga xam kii lan la fi def lan la fi bàyyi ëllëg boo leen ko jëlee lan ngeen ci changer ci li fi nekk li ngeen doon critiquer fexe leen ba leen ko fi bàyyi. te li fi nekk aussi te li fi nekk li li li ngeen bëgg changer wax leen Sénégal yi nangeen ngeen koy changer mais boobaa day fekk mu leer ci seen bopp parce que am na benn espèce de communion wàññi leen